gannaaw ba nguuru Sénégal jëlee dogal dagg signaalu tele bi ci lu tolloog weer ab délégation direction Walfadjri ci njiitalu président directeur général bi Cheikh Niass directeur tele bi ak rajo bi Moustapha Diop oustaz Adi Niass ak yeneen i kilifa yu ngànk kër gi ñëw nañ seet si xalif général de mourides Serigne Mountakha Bachir Mbacké yeggee ko seen jàmbat Moustapha Diop jël kàddu xamal dëgg-dëgg kilifa gi ana naka la mbir yi demee. ay xaalis bu bëree bëri lay ñàkk te ñun ñii di wax ak yow Mbàkke leer nañu ne tabaski gii di ñëw bu kenn jógul dimbali ñu ci mën nañoo bañ ab luñ tabaskee yàlla rek a xam bokk ceeg Mbàkke jamono jii ñuy ñëwee di wax ak yow am na ñett ci ñun ñoo xam ne ñu ngi ci kaso bi muy Cheikh baare Ndiaye nga xam ne fii la dëkk ci Touba gii di euh, Papa Ndiaye di Coro Diouf ñoom ñett ñëpp yoon jàpp na leen teg leen loxo te lenn donc ko waral mooy lañu ñu lamit bàyyee woon mooy liggéey ci jàmm ak salaam di wax nit ñi seeni naqar ñu mën koo dégg ba gouvernement faj ko ci loolu nag lañu nekk mosuñ cee jóg loolu nag moo tax jamono ji jamono ji Walfadjri yi dañ koo tëj nee nañ tëjoon nañu ko euh, fukki fan ba ñu waxtaan ba ñu dellusiwaat di def suñu liggéey bërki démb wala démb ñu nañu ñu ko tëj fukki euh, weeru lëmm weer woowu nag Mbàkke wax dëgg yàlla amuñu luñ def jàqare nañ jooy nañ ko fu ne te loolu moo ñu tax a ñëw xam nañ ne jàkkaarloog sa jëm jii rek faj na soxla bu ne waaye xam nañ ne sa ñaan mën na koo faj waaye boo jógee jël sa téléphone wala wax sa kàddu mu faju tey jii loolu rek moo ñu ànd ñu ngi sant rek bi muy tontu ay ganam xalif général des mourides sëñ Muntaxa Bachir Mbàkke ne xamul woon ne coow li nii la demee waaye dina ci def lu mu mën ndax njabootuk Sidi Lamine Niass ak njabootam la neen dégg na kàddu yu baax a baax neen mu ngi sant ci gërëm bu baax waaw ñu ngi sant yi gërëm bu baax mu ne incha allah xame wuñ ko woon noonu waaye gannaaw xamee nañ ko noonu dina wax dina ci tax jóg incha allah rabbi dégg mu ne dégg na kàddu yu baax te incha allah dees na ko lépp loo xam ne mën na ko ci rek incha allah dees na ko def taxawu leen ndax xam nga ne njabootu Sidy Lamine ak njabootam lañ kon na ngeen seen xel bu baax a baax lii seen yitte incha allah dana ci taxaw bu baax a baax incha allah ba suñu borom defal leen ci oustaz Adi Niass kilifa diina teewal njabootug ñaseen bokk ci délégation bi sàkku na ci Serigne Mountakha Bachir Mbacké mu ñaanal ndondok Sidi lamin ñas ñaanal groupe Walfadjri bi nga xam ne taxaw ci bëgg-bëgg askan wi dong moo ko tax a jóg. yi moo doon liggéey rek ku ne xam na liggéeyam ci lislaam ku ne gis na liggéeyam ci xeet wi ñëpp gis nañ seen bopp ci rajo bi ak ci télé bi télé la boo xam ne borom ba muy dund Seydi Mouhamadul Amin dafa wax ne bokkut ci liñ may donu def naa ko muy fu ñeel senegal yëpp famille bi ñëw ànd ñëw fi yëgal la loolu sàkku ci yow nga jàppale leen ci mu gën a mën a taxawee ba nga xam dana gën a dana dana jariñ xeet wi. ab jafe-jafe boo xam ne tax na ba ñu euh, taxawal signalam loolu itam jar na ñu ñëw itam junj la ko nga ñaanal ñu ci ndax loolu yëpp ci cadre liggéey bi muy liggéey rek la loolu dab ko ci ñu ñaan la nga ñaanal ñu yàlla dindi loolu ci ni mu gën a gaawee. gannaaw ba nguurug Sénégal tëjee fondation Walfajri bi askan wi doon yónnee ay koppar ngir jàppale groupe de presse bi ci jafe-jafe yi muy dund Serigne Mountakha Bachir Mbacké yëkkati na lu tolloog juróomi million jox ko président directeur général ba noppi xamal ko ne it ne lii tàmbali bi dong la Touba Mbacké Mamadou Makhtar Sarr pour la radio télévision Walfajri